dañu ne c'est pas possible mu ni oui c'est possible participer ci la paix en Casamance tëgg fi événement bu nekk nag ak fu nekkit mu tëgg ko ba ñu ko le promoteur du continent yaakaar naa ne El Hadj yi Mbaye moo ko ko tuddee kon événement jaaxalu ko organiser événement jaaxalu ko mais lii nga xam ne moom la ñu dëgmal diggante Modou ak Ama bi njëkkoon nañ ko jàpp li toxal événement yëpp moo ko toxaloon ñu jàppaat ko boobu ak léegi ñu bëgg ñaari mbër yi daje honorer seen contrat parce que contrat bi promotion wu làmb ji li ci bokk mooy def face to face boobu léegi mënul am ndax fitna Cheikh maa koy wax léegi suma fils ma ni ko ñun événement mënuñu dépassé événement mënuñu jaaxal parce que ku ñeeg ku yéeg ñay ba wàcc ko dara mënu la jaaxal mënuloo ama mënuñoo am événement bu nga xam ne dafay surdimensionné wala mu egg ci level bu nga xam ne Modou Lo ak Balla Gaye egg foofu mënuñu am événement bu nga xam ne mën na dépassé Tyson Yékini mënuñu am événement bu nga xam ne mën na dépasser Gris Bordeaux ak Eumeu mënuñu am événement bu nga xam ne mën na dépasser Modou Lo bi toog ak Eumeu donc événement la làmb kese la mënul doon leneen c'est du xare du guerre lamb la ñaari doomi réew mi di ko bëre kenn ku nekk ci ñoow di sa trésoru morom dama ko wax léegi sama fils ma ne ko gis nga waaye di mi ngi commencé ci feccal dof mu toog Modou ak Ama ñoo signé contrat Modou Lo ak Ama ñoom ñëw war a jëflante bu ñu tëjee barrière yi ndey du ñëw baay du ñëw farandoo du ñëw kenn du ñëw. ñoom ñaar ñooy jëflante ku mën sa morom duma. waaw man mi nga xam ne damay damaa faral Modou lu ci sama yoon lu dul ñëw tàcc sama mbër man mi faral Ama lu ci sama yoon lu dul tàcc sama mbër il faut que les gens dépassionnent les choses il faut que ñu apporter ko à leur juste mesure amu fi leneen lu nga xam ne jar na xiiroo beeg ŋaayoo beeg fitna ji ci biir yow Modou Lo bi tax nga xeex wala Ama bi tax nga xeex moom xeexub teraanga lay xeex. xeexub teraanga mooy ñu fay la ay million nga xeex boo paree dem jëli sa reliquat yóbbu sa kër yow mi nga xam ne nag kenn fayu la kenn médiatisé wu la moom moo tàcc yi moom moo succès bi moom moo dara lu dul topp di tàccu mbër mi loo ci xeexe loo yàq événement jàmbur il faut que les gens soient responsables il faut que jeunesse su Sénégal dellu si waat nekkaat ay nit parce que la violence n'a pas de place dans le sport la violence amul place sax ci suñu société fii Sénégal la ku sigi xam ne nga sa morom tey lu ma la def bu ma xëyee dinaa rus parce que dinaa daje ko nga xam ne dina mën a yàq na xam nga loolu leen bokk kon nañu bàyyi ñaari bëri ñu def seen liggéey ñu honoré seen contrat Luc Nicolaï nag li koy war li koy def mooy jël toutes les mesures et toutes les dispositions sur le plan de la sécurité kon nag nañu gën a dal dem nañu bay xalaat ne événement bi est sax bëree ko fi wóor na wala bëree ko faa wóor na pourquoi mënta wóor te ci Sénégal la ñu nekk Sénégal la nekk mhm. tey Modou mooy le roi des arènes loolu la yàlla dogal kenn mënu ci dara moom moo daan le 28 juillet 2018 Eumeu Sène jël titre roi bi ci moom 2019 jël titre roi bi ci Eumeu tey Ama di def ay preuve Modou may ko chance ni ko roi des arènes nga bëgg maa ko yor kaay ñu bëre ko boo ma manee jël ko su ma la manee delloo ko mais loolu je pense que ñun ñëpp dañu waroon tàccu farandoo Ama yi dañu war a tàcc Modou ni ko Modou merci d'avoir donné cette chance à Ama loolu loolu mooy li war donc kon nañu nekk nit nañu dindi lépp luy fitna teg ko fële ngir yàlla ñu bàyyi Ama ak Modou ñu jàkkaarloo parce que loolu warta mën a impossible yëkk nañ ko jàpp seen TV mu yàqu ñu jàpp ko arène national mu yàqu ba nit ñi di wax nañu def conférence de presse séparée wala nañu def duplex pourquoi c'est possible que Ama ak du jàkkaarloo ah ñi ci seen yoon nekkul nañ ci génn et c'est la balle est, est, est dans leur camp fans club yi ngir yàlla euh, nañu yàpp seen place bu ko defee ñu mën a def événement bi événement gënu ko rëy événement bi bu neexoon euh, sëñ Fallou Luc Nicolaï du ci def promotion mën loo Ama tëgg na boppam ba pare amul foo koy tëggee te du fees mais il y a des principes yu nga xam ni moom mënu ci déroger dafa am ay partenaires am lu mu signé ak ñoom war a honorer loolu moom aussi donc partenaires yooyu ñu ngi koy xaar ci taatu garab yi parce que ñu ngi ko naan li pourquoi mënuloo organiser lii alors nañ ko jàppale mu organiser ko je pense que loolu moo doon le mot introductif ngeen baal ma xaw naa guddal tuuti mais tey dama nekk ci position bu nga xam ni ci làmb moom la El Hadj Bécaye Mbaye am moom la suma papa Ngagne Diagne am ñun ay régulateurs la ñu war a doon. Mhm. ñun dañu war a appeler les gens ci dal woo ci dal parce que ñun ay doyen lañu te je pense que lépp luy defar ci lañu ñu war a taxaw yor jikko pusa ak wëñ et nous avons une mission de conscientisation et d'élucidation des masses lillaay wa rasuli li xew ci football bi bu xewee ci làmb ji dañuy tëj làmb ji góorgóorlu leen ba li ñu ñuy ji bu bañ a nekk ci ñun benn bëñ day foog te weex loolu moo doon introduction bi je pense que euh, dañuy bàyyi d'abord. El Hadj Malick. waaw loolu nga wax solo. Mhm. xam nga ni ngeen di Serigne Fallou Lim Nicolas de la lutte sénégalaise. mais xam nga richesse su réew du jamaa du or du comportement te ab jeunesse ci am benn comportement boo xam ne buñ ko dee gis ci jeunesse xelu réew diggante Modou ak Balla Gaye seeni combat du nekk nit ñi dégg nañ ko. rivalité bu garaaw xëy benn bis bokk benn boolu añ bu lekk. ay ana ña ca doon xeex ña ca doon rayet ña cay perte donc élargement li Thiam Sénégal la ñu nekk réew mi kenn ku ne ci ñun ñii toog fii di bokk maam. réew xam ni koo fi gaañ yaa koy fat Sénégal réew moo xam ni koo fi teg yaa koy yóbbul añ wala reer waaye réew la moo xam ni koo fere yaa koy ay mbokk lañ kon ay mbokk nag waruñu xàjjuloo waaye dañu war a bokk benn te it nag sport daraan boole waaye taxalewut kon na ñëpp ànd ak dal ñu tëgg combat bi ci jàmm mu jeexe ci jàmm Alaaji Maalik Càndum wax na ko bés yàgg naa rëy nit ñi di ci coow lu nekk ñu bëri ko mu jàll bal tàppul sagar xeejul deret tuuruwut war naa mën a nekk ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé mais beneen bi ci teg Alaaji waaw responsabilité mbër yi tamit dañ ci liggéey. ndax pour man beneen mbër gën te am responsabilité kii di Modou Lo ndax mooy wax des arènes. waaye beneen mbër tamit war te amal ëpp responsabilité Ama Baldé ndax it nag moom moo soxla couronne. kon ñoom ñaar mbër yi ñoom ñoo war a jël seen responsabilité wax ak seen i supporters wax ak seen i waa gox ñu dalal lépp ñu def face to face bëri ko ci na mu gënee que le meilleur gagne ndax ndam lu génn Sénégal jërëjëf Aliou Malick Thiam. xam nga dem nañu sax ba nit ñi di def point d'interrogation combat bi ndax dina am combat bi am li koy firndeel mooy Luc Nicolaï mi ngi nii toog moom lañuy ñuy bàyyi mu wax ak àdduna à travers les médias hmm. ñunu amul ñaari yoon jàpp nañ ko mu yàqu nit ñi dem nañu ba naan combat dina am ak lu am tëgg lu di teew ñuy nataal sëñ Fallou Luc Nicolaï vous avez la parole bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakatu di gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant ñëpp ñi ñuy seetaan di sant àdduna kàddu yi nag rafet na Malick li nga wax rafet na Cheikh li nga wax rafet na euh, sama kàddu nag du ci mën a gum sore ndax dañ jàkkaarloog suñu mbokk taskatu xibaar yi yi nga xamante ne tey am na lu am na loo xamante ne bëgg nañ ko xam te loolu mooñu fi tax a teew tey donc dañ leen déglu rek après. waaw le mot introductif rek quoi doon ci doon baax. waaw introductif rek mooy la jeunesse de l' événement je pense que ce sera très facile à faire. Mm-hmm. Euh, Malick am na loo xamante su ma defee jeunesse sax. dina tax ba lu ma bëgg a wax journaliste si buñ ma posé question du ma ko mën a wax. Mm-hmm. moo tax bëgguma dugg ci jeunesse boobu. je préfère bàyyi leen ñoom ñu laaj ma lépp luñ ma bëgg a laaj ma tontu leen ci tey incha allah lépp nag laa wax. ay mi ngi noonu léegi élargement bi li ñu def mooy dañuy jox suñu mbokki presse bi kenn ku ci nekk présenté ñu ngi nuyu journaliste yëpp ku ci ne sa tur sa sant di ñu fi teew ñëpp nuyu tamit ñu ñuy seetaan ah ci télé bi. waaw di souhaité ñëpp bonne heureuse année deux mille dix neuf parce que deux mille vingt deux mois parce que boobu léegi jotaay bu yaatoo bi amuñu ko xam nga di profité souhaité àdduna yëpp wane heureuse année deux ñaan at yi ñu dugg yàlla nekk at bu dàkk ci at yi yàlla génn ñu fi mbas bi Sénégal yàlla def fi jàmm di tamit lion yi kan bi ñu dem yàlla jox leen ndam bi ñu indi ko fii di nuyu Sénégal bi ñu mën entier Modou première laaj bi mooy sa diggante ak Ama Baldé coow li bëri na fitna bi bëri na jàpp nañu ñaari yoon face à face bi mu avorté nit ñi dem nañu sax bay dute ci combat bi dina am du am alors loolu yëpp tey la ñu bëgg nga dellusiwaat ci euh, pour ñu dellusiwaat xel yi d'abord mais pour confirmer nit ñi que Modou Lo Ama Baldé bu jàmm rek amee dina ñu sëgg le 13 mars. waaw waaw El Hadj Malick. micro yi. presque li ñu wax a gën a yëkkati kàddu bi aussi alors waaw El Hadj defe naa wax na lépp sa introduction bi <coughs> tey ñun bu tee fii nii lu mu woote muy jàmm te képp kuy nit jàmm war na la yitteel ay sax amu fi trop trop mais dafa am lu ñuy gis ci làmb ji waxuma rek làmb ji mais partout ci jeunesse su Sénégal taay muy violence dafa bari trop trop trop trop tax na li nga wax jàpp nañ fi ñaari yoon ñu war a jàkkaarloo ay fitna wala yooyu tax na ba tax amul looloo war a tey woote bi incha allah ñu toog wax làmb ji moom comme li nga wax rek dina am ak du am moom kenn waxatu ko am incha allah bu yàlla defee jàmm rek dina am mais di wax rek mbër yi tamit dañ ci am responsabilité bu mag a mag a mag muy si seen kàddu que nit ki du la neex wala fu la neex rek nga koy waxee parce que tamit am na li nga xam ni dafay dafay dafay xale yi ci ci ci ci violation ba tax na nañu xoolaat suñu communication bu baax a baax lu ñuy waxee ak askan bi mais di waxaat jeunesse Sénégal rek Sénégal jeunes yi lañ yaakaar suba pour ñu yor mais tey jeunes yi bu ñu yoree yenn comportement yi du ñu neex a wala sax kuy dund fii Sénégal sa xel mën naa bañ a dal. parce que li may wax du ci làmmu ji fépp la bépp bépp boor ci Sénégal muy football bi muy politique bi muy leneen ak leneen violence da cee bari trop trop trop trop te violence amul lu muy defar. bu ñu nee Sénégal ne pays de la teranga teranga bi suñu biir la war a njëkkee mais pas ñu nekk di yee ay fitna ay histoire yi nga xam ni amul amul benn sens jëmewul fenn dëkk bi xam nga di waxaat jeunesse bi rek ñu bàyyi xel ci loolu puisque li réew mi seen loxo la war a mujjee dañu xoolaat seen comportement bu baax baax a baax supporter mbër wala supporter ku mën a doon taxul ngay ñëw di xeex wala di sànni ay xeer wala non sport dafa war a boole mais warul tàggale loolu la combat bu nekk am nga ko fii tàkkusaan bu nekk am nga ko fii mais tension bi ñu sentir ci combat bi euh, dafa mel ni dafa jéggi dayoo lan moo waral lu ni mel alors que yow daje nga fekk ku ne yàgg Balla Gaye métti na lool te fu mu yéen a ngi dinaa la ak naa ak ak bokk benn bool li ci nekk. léegi damay wax tension bi est que ñu jël combat bi benn côté bi est que ñoom affaire bi diisul si ñoom ba ba ba ñu jëlee ko violence quoi. parce que man comme li nga wax bis bu nekk am naa ko bis bu nekk am naa ko mënuñu am bis bu ñu dépassé xam lépp dañ ciy dugg nuñ ci war a duggee dem jéem a defar mais suma juumul ñi est-ce que jëruñu leen ëpp doole ba tax ñu bëgg ko kii ak violence da nga jàpp ni fitna bi am yëpp beneen bi la du sa camp ah non ci responsabilité ñun keroog li am rek ñun bu ñu am na noo xam ne buñ defoon comme ñoom tey mën tollu fi nga xam ne tey dañ koy nettali deneen lay doon ma xam nga bañ yooyu yëpp moo tax xam nga ñu def yëfu mag tourné ndànk dem ñu bi jërëjëf loolu moo doon proto proto introductif yi waaw. bëggoon naa ko laaj parce que boo boo xoolee signature contrat yi ñu woote ñu woote woon Sen TV ak bi ñu wootee woon Arena. Oh. lu ci ëpp Ama Baldé mooy jiitu si moom daal mooy njëkk ñëw mais dañu gis ne Modou Lo moom mooy mujj ñëw lu ci biir coow ci moom rek lay mujj quoi. waaw parce que xam ay signature yëpp dafa am convocation bu njëkk bi bu ñuy dem boobu maa ngi jokkoo ak ñi ma war a jokkal muy lig ñu ngi toll fu ñu toll foofu benn dafa amoon coow avant ñun ñëw sax départ suñu kër amoon na coow ma ñëw ba taxaw côté boobu woo saa yi ñu ne ñu xaaral tuuti ñu régler problème bi mais suñu côté amul woon benn benn benn problème problème bi foofu la nekkoon ñi fa nekkoon ak force de l'ordre bi amoon ñu ñëw màgg dem màgg rek ñu mujj a ñibbi keroog tamit noonu demee ñun indi ñun benn violence dañu def suñu escorte ñëw avancé ñëw ba jegee saat jékki-jékki gis ay xeer yu fu nekk xam nga ñu def yëfu mag tourné ñibbi ah mais amul benn violence boo xam ne suñu côté la jógee comme ni ma wax bis bu nekk am nañ ko ci làmb bis du ñu dépassé du ñu dépassé ba ñu def naka suru noonu ba budul loolu tamit tey fu ñu yàlla teg ci làmb dañu war di defar rek dañu war a gis li nga xam ne luy ñaaw ñu jëm ci wax wala jëm ci boppu tegee mais nag ñu indi lenn li nga xam ne violence la muy ci wax muy ci jëf euh, alors mais mais bi muy ñëw. waaw waaw mën après ñu jox suñu gars waaw waaw euh, parce que Luc il faut mu euh, sànni ñaari kàddu Luc c'est pas la première fois ngay tëgg événement ah muy muy am genre détail yi quoi ah Fatou ñu ngi fàttaliku ca ci ca Mbour la fa xewoon. alaaji Soni la fa xewoon saa yoo tëggee daal day am tulleeg màlli day am coow day am fitna loolu ci yaw la gars yi sax dem nañu maanaam lig dañu di mel pour que événement bi mu mën a jaay mais day tombé rek tombé moo waral ay gaaw lan moo tax lig Nicolas événement bu mu dugg mu am toj bopp jàppal bàyyi ci yow lu mu doon waaw jërëjëf Malick euh, tey nag damay leeral lu bare làmb ji ñuy wax tey muy Modou Ama Baldé bu dee man sëñ Fallou Luc Nicolaï jaaxal na ma bu yeboo ma bàyyi làmb ndax ren laa am 22 ans ci làmb waaw ku tëgg ay Mor Nguer tëgg ay Mbaye Samb yaakaar naa ne yàgg ci làmb Balla Gaye 2 Modou Lo comme ni nga ko waxee sànq jaar na fi lu nekk gis nañ ko ci eh, fi mu mujjee itam gis nañ ko ci mais dama bëgg rek leeral benn mbir mu ndaw dalalaat xel yëpp ne leen man sëñ Fallou Luc Nicolaï maa ñëwaat man ci làmb ji maa jël làmb ji en main le 13 mars làmb ji am face à incha allah wa rabbi bu neexee suñu borom face à face yi ñuy wax dinañu am te dinañu am ni ñu ko bëggee benn coow du ci am benn violence du ci am muy Modou Lo mii toog di Ama Balde ba may tëgg làmb ñoom ñaar ñëpp kenn takku ci ngemb kon ñoom jaaxaluñ ma donc tey dama bëgg a leeral askan moo tax ma ñëwal suma bopp gis naa nag ci réseaux sociaux yi ak feneen ak feneen ak ci presse bi ak ci télé yi ñuy wax waaw li respecte tout amateur yi du ñëw du ñëw ci face à face du ñëw moo tax ma ñëw tey pour leeral askan bi man maa ñëw modestie à part nag interroger leen histoire làmb yu mag yëpp yi fi am ngeen interroger histoire ne kan moo ko tëgg ngeen laajte ba xam lépp làmbar yu mag yi fi ne laa lay wax kooku suñu borom moo ko dogal du ci man ku yaakaar ne ci man la yaa ngi juum yàlla moo ko jaarale suma loxo di wax ne nag bare na tey coow li bare na nii mu am ay ñuy tëgg làmb di wax mais ñu ci bare samay face à kii mu ngi nii toog Malick Thiandoum fekke ne lu bare samay face à face sax dañ ma doon ñaan pour ñëw seetaan ko di ma ñaan di ma laaj nan la ñuy defee événement dama bëgg ñu dalalaat xel yi wàcce tension bi fii làmb rek la mënul passé làmb te li ma leen wax ñëw naa fasa à dina am maa koy diriger du keneen nag maa koy diriger te dina am te du yàgg dara dinañu toog moom dina toog Ama dina toog dinañu wax te dinañu bëre làmb ji barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul loolu leer na am na ñu jot a bindu pour samp seen laaj ñu ubbi une première liste de sept personnes mais bii passé ce que foofu dafa jege Ama Baldé do taw ba tax te coow li nga xamante ni moo moo jur lii tey mu am deuxième question mooy Modou Lo tey ñu ngi leen siyaar di leen bëgg encore gis nañu aussi y a droit des élèves mais tey jii seen supporters ñu bëri bëri ñu ngi ñu ñàkkaar ndax combat bi dina am tey lan ngay rassurer say say supporters ak lan ngay wax askan lam maa ngi siyaar di di déglu. Modou mën nga tontu d'abord. waaw waaw comme li ma wax sànq rek suma supporter du ma leen di wax lu dul incha allah combat bi na am parce que man boobu ba léegi li ma war a nekk maa ngi ñu jàpp ni combat bi dina am incha allah te loolu la ñu ñaan mu yóbbul ci ak jàmm salaam di wax supporter rek ñu dalal seen xel bu baax a baax seen mbër xam na lu ne ci kanamam xam na lu koy xaar bu baax a baax incha allah te maa ngi ci yàlla baax daal. lépp. waaw euh, Malick xam nga il faut que ñu arrêté tuuti polémique yu ndaw yooyu. su ma neexee man biir kër Modou Lo sax ma def fa face à su ma neexee ma def ko biir kër Ama Baldé xaalis laa leen fay ay centaine de millions du ay fo contrat laa seex ñoom dañ koy respecté dañ koy respecté ci nii wala ñu respecté ko ci nele wala boog la nga xamante ne loolu laa waxante ak ñoom bu jot xaalis ba jotee duñ ko jot face à face moom li ma la wax dafa leer dina am du yàgg dara Modou dina toog Ama dina toog journaliste yi toog ñu wax ak askan bi jëm ci làmb ji ci jàmm ak salaam bëre ko ci jàmm ak salaam ndam li képp koo xamante ne suñu borom yow la ko jagleel nga jël ko ci jàmm ak salaam te benn coow du ci am incha allah. merci. Fadel Niang. wala dañ koy yóbbu comme li nga wax. Rock énergie parcelle mbooloo yëpp écrit yu nekk parcelle yëpp écrit yu nekk parcelle man benn laa parce que tey su ma amee combat ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen écrit ñëw nekk sama côté mel ne ku nekk Rock énergie te papa maam amoon combat bu jàpp ñëpp ñu koy pare loolu moo taxoon ñun ñu dem foofu di ko jàppale mais Rock énergie dañu nekk toujours incha allah fa la ñuy nekk bay bàyyi bëri bu soobee yàlla contact yi yaa ngi koy def ak waa Rock Énergie wala eggagoo ci level boobu parce que dafa mel ni nee nañu da nga làqatu Lac Rose la. non non ko jëfee maa ngi maa ngi parcelle ah fa laay ñëw fa laay ñëw di entraîner ñoo ngi daal xam nga ci liggéey bi duñu yaakaar moom ñuy may tam ñoo ngi ci incha allah lépp étape par étape bu ñu tolloo ci étape incha allah bu ñu war a demal feneen la ñuy def incha allah. nit mu ne il y a des doutes arène nationale na combat bi wala attanu ko wóor la ñu def ko fa wala wóorul. ndax yaakaar ni ñu ubbi Léopold Senghor solution la baa nga yóbbu ko beneen. waaw Malick man de su ma gis-gis rek laay wax mënuma nag nekk ci xelu keneen mais man li ma jàpp mooy combat bi mënuñu ko bëri arène parce que keroog gis nañu billet yi je pense cinq mille francs lañ ko jaayee billet amateur te gis nga amateur yi kaas. te bu ñuy kaas aussi peut-être ci benn côté wax nañ dëgg parce que publicu làmb xëy na euh, doole yi yemuñu bien que damay gis ay euh, artistes yu jógee étranger ñu mel ni ay daju ay ñeneen ak ñeneen bu ñu nee billet dix mille francs billet vingt cinq mille VIP cent mille kenn du wax dara alors que li ñuy fay mbër yi sax fayuñu ko ñooñu. donc tey je pense que bu dee làmb nit néegu ci joxe cinq mille francs ci mbër yooyu fay ay cent cinquante cent soixante millions. je pense que war nañu xoolaat mbir mi il nit ñi xam aussi dañu bëgg mais arène national li wóor ba wóor mooy man xam naa ne combat ba xaju fa mbër mii toog xam na ne xaju fa ndax Modou mii leer na ko ne supporter am kase kase feesal nañu arène nationale moom mii wóor na ko ci combat bu caaxaan passé dëgg des ama moom itam ay supporter am feesal nañu arène national léegi nag ñun moom amuñu décision bu ñu ciy jël li ñu mun mooy def suñu liggéey bu dee arène nationale moo fi sës itam ñëpp na leen leer ne billets moom du yomb waaw billets moom du yomb moom. waaw donc euh, loolu daal moom moo ci nekk mais ñu doon suñu sago euh, ñu ngi ñaan état du Sénégal ndax aussi jeunesse am rek la am euh, population rek la am ñu leen di ñaan solennellement ñu def exception ibil ñu Léopold Sédar Senghor. ñu bëre fa combat bi pour mu doon fête ci ñëpp ñoo xamante ne xëy na du ñu mun na dem stade ñëpp doon fête ci ñoom affaire bi doon vraiment loo xamante ne ku ne dina ci gis sa bopp. voilà loolu daal la ñuy ñaan incha allah. <coughs> benn question rek pour suñu Fallou Nicolai ak Maodo euh, suñu Fallou question bu njëkk bi mooy làmb ji ñu bari ci amateurs yi comme ni nga ko waxee léegi xalaat nañ ne combat bu toll ni Modou Lo xajul Arène ñuy wax ni suñu Fallou mi sax mu ngi ci jël làmb ji yóbbu ko ba Gambie est sa xel mu ngi ci yóbbu làmb ji ci Gambie wala déet benn question bi moom la Ama Baldé avant ngeen di daje dafa dëggal ci suñu nopp ni Modou Lo ñemewul ngeen def face to face mu tëkkalaat ko ni bu ñëwewul ba tax mënuñu la ñoom ñu dernier discours Ama bu njëkk dana wax ni ku mën ku dàq bëre doole bii dafa jël mel ni kon Ama dafa jàpp ni moom moo mën moo ko yoon taxawaay doom ak loolu lu ko léegi ce que sa xel mi ngi ci yóbbu combat bi Gambie comme ni ko ñenn ñi xalaat waa waaw Malick euh, je pense que nag quand même yebuma sénégalais yi quoi franchement combat bu tool nii su ma ko naree jël di ko yóbbu Gambie mooy wax dëgg yàlla joxuma cër sénégalais yi li may ñaan état bi jël disposition yëpp ñu ànd ci liggéey ko événement bi doon événement boo day apaiser xol yi apaiser xel yi ñu ne ci hôpitaux yi féex ñu ne ci lieu de détention yi féex ñu ne feneen ak feneen féex ñëpp féex loolu daal laay ñaan ndax événement yu mel nii dafa baax ci réew je pense que Gambie moom honnêtement xalaatoon naa fa yóbbu euh, face à face Modou ak kii mais combat bi ci boppam moom honnêtement xalaatuma ko yóbbu ndax euh, respecté naa quand même sénégalais yi waaw am na loo xam ne moom ma ne ko waxu mbër la jaru sax di tontu quoi su ma demee bay ragal góor waxuma lu mbër su ma demee bay ragal góor ma xoolaat bopp waaw muy wax nag ay combat bi ku mën a ko ay ay waxu waxu mbër la rek ay wax bur xumba rek quoi mais géew ga bu ñu tëjee saa ku nekk xam nga ku nekk xam nga sa morom yàlla baax na yàlla may talag fekk rek incha allah wax ji moom jarul muy bëri comme jëf war na moom wax jarul muy bëri incha allah Mamady li renvoi yi bëri na diggante Modou Lo ak Ama Baldé lan moo ko waral problème mu xaalis la wala lan et li nga waxee nii décidé nga mais da nga yéex a jël sa ay matuwaay lan la lan moo xew nit ñi ko laaj. beneen laaj bi maa ngi ko jëmee ci Modou Lo Modou Lo 4 février 2006 2006 nga ñëw nga def 6 combats 6 nga daan Alioune Seye nga daan Alioune Seye nga 4 nga daan Pape Sène 11 euh, février 2006 nga tànn euh, ki nga xamante ni mooy Alioune Seye numéro 2 ak ñeneen ñi ci topp ñoom Bouba Diouf 2 avril 2006 nga def 6 combats 6 euh, victoires sa adversaire ñëw 9 novembre 2008 ci làmbu dem ba dab la ci làmbu dem mel da ngeen a am lu ngeen jàppalante yéen ñaar sa diggante ak ki nga xamante ni mooy Ama Baldé Modou Lô buy buy wax bariwul lu muy jaar ci turu Ama Baldé trop. lan moo waral loolu euh, bu may mënee ñëw ci wàllu galaaj alaaj Malick Thiandoum euh, wàllu galaaj est-ce que du du du posé tuuti du du xaw a naqari combat bi tuuti parce que ko merci beaucoup gars yi ñu ci jaar laaj rek te mu gën a euh, précis Luc gars yi nee bi dafa mel ni jekkoo yoroo waaw Malick c'est vrai euh, maa ngi koy remercier bu baax di wax ne nag professeur am na naa euh, li mu jàngal élève ah. des na tuuti waaw parce que renvoi amul ci combat bi benn renvoi moo ci am musuñu renvoyé combat benn renvoi moo ci am te Covid moo ko indi bu dul woon Covid bi dañuy tëgg làmb ji musuñu renvoyé ko wax ma benn renvoi bu dul renvoi bi amul. vingt cinq décembre mooy benn renvoi bi. Ah, amul beneen de si Covid la woon Covid moo fi jaar. voilà ok euh, ñaareel ba euh, affaire xaalis la waa d'accord maa ngi ñaan ñu defal ma téléthon ndax ma amaat xaalis mu a tëgg làmb yi. Hmm. non affaire téléthon kenn waxu ko. ah déet comme yoratuma ma defal téléthon il y a un budget. waaw. il pour ce combat. Mhm. budget boobu ndax boucler nga ko say partenaires fan la ñu toll ak yow ci budget bi ak montage financier bi ba lii yëpp mën a àntu parce que li nga fay mbëri bari na. am na question yoo xamante ne euh, du neex tontu parce que. ci niñ ko dafa yomb quoi CNG ñu ngi fi maa ngi en direct président Bira ngi may dégg Ndiame ngi may dégg combat bi ma régularisé joxe reliquat yi Modou Lo gi nii di ma bàyyi ma fen ëpp na 6 mois amul benn mbër bu ma deseel un franc mu ngi nii toog yorelu ma kenn dërëm ñoom ñoo ma yorel ma yorewuma leen. le budget prévisionnel. non may ma ma ñëw parce que rek ma laaj. ma continuer question bi ñu ma laaj dafa am loo xamante ne lii may wax duñ ci gàmm ñun dañ ko xam dañuy def ay montage li moo tax ma tontu ko rek comme xam nga nit bu la tontoo yenn question yi nga tontu ko rek question bu terre à terre da koy tontu terre à question réponse bu terre à waaw moo tax ma waaw moo tax ma ne ko nañ ma defal téléthon. ndax ma am lu ma yeggalee combat bi. voilà am. loolu moo tax ma waaw am na benn laaj bu ma bëgg a laaj euh, Serigne Fallou lim di ko laaj. allez-y ah, parce que dañuy xool dañuy xool làmb ji dafa nekk facteur de développement ñu gis tamit làmb ji li muy def ci stade la heure bu ñu tëggee làmb stade day fees del problème wala boo gis ne sponsor yi ñëw téye seen loxo ci làmb ji loolu daal jaaxal ma. waaw Cheikh euh, je pense que li nga wax c'est extrêmement important ça c'est des très bonnes questions te dañ ciy tontu parce que booy seet làmb ak coow li muy am yëpp mais lamb yokkuwul est-ce que lamb dafa yokku làmb booy xool sax dafa wàññeeku li daan am bu njëkk ba engouement bi daan am ci làmb xëy na amatu ko mais tey xëy am na loo xam duñ ci mën a sore ndax ñun ñëpp ay sénégalais la ñu te dañu bokk réew mi mais am na ay lobi aussi yoo xamante ne tey làmb arrangé wu leen nañu waxante dëgg donc ils sont obligés fustiger làmb pour mën a ñoom récupérer sponsor yooyu fii nañu waxante dëgg Sénégal lañu ñu ne amuñu lu ñuy nëbbante te ñun nag bu ñu demee ba mën a jàkkaarloo caméra yi te duñ leen wax dëgg ah bu yeboo ñu toog suñu gër waaw ndax lu ne def nañ ko ci làmb ji sponsor bu ne indi nañ ko façon cachet bu ne jox nañ ko mbër donc tey mais nag euh, maa ngi lay bëgg a ragal Cheikh xanaa dafa am loo yéeg am na sponsor bu mag boo xam dina dugg ci biir làmb ji diggante waaw te bu soobee yàlla fii nekk suba di ngeen ci am yéen ñëpp lu leer koo xamante ne bu mag a mag la ci làmb bu yoroon làmb ji bu neexee suñu borom dina duggaat ci làmb am na solo waaw loolu man maa ko wax. voilà. très bonne nouvelle. Thierno Sy lutte sénégalaise. Balla ah oui excusez-moi. waaw moom lu mu wax di wax. moom euh, mi ngi la laajoon. waaw ah, waxoon na affaire de ah. lu tax aussi dafa mel ni dafa am lu am sa diggante ak Ama ba booy wax doo tudd turam. na lu am diggante ak Ama wax sax doo tudd mel ni dafa am benn ñagas-ñagas seen diggante mbiri gàllaaj aussi dafa mel ni dafa nara dem ba yàq lamb parce que xëppante beeg yooyu ñu koy xalaat seen diggante. ay ñagas-ñagas mënul am sama diggante ak Ama parce que li may wax làmb moo ñu boole muy benn takkusaan bu jeexee. bu ñu dajee xanaa ci xew wala leneen ñu am jàmm suma adversaire la ñu ñooy mayte xaalis amul lenn lenn lu ma yéene sa bopp laa ko yéene wallahi naa fi sa bopp laa ko yéene amul benn ñagas ñagas luy am ba may bañ a tudd turam non mais des fois xam nga rek nga wax a xaalis mooy loolu noonu mais amul lu am suñu diggante dara waaye ay affaire yu ay xumbal ci làmb nag xam nga yu ci bëri yooyu ay xumbal la rek ci làmb man boobu ay xumbal laa ko jàppee sooy loolu daanu mbër man jàpp ma ni loolu mooy daan mbër mbër lu koy daan saway liggéey boobu kongu la ñëw taxaw ci géew bi ay ñëw fële demal indi ay bari ñëw xëpp fii ak yooyu yëpp ay bataille psychologique rek laa ko jàppee te boo amul bokku dëgër loolu mënoo ci kii mais alhamdulilah expérience bi ma am ci làmb yàgg naa ci yooyu mënuma déstabiliser mënuma yëngal oui. Thierno Sy lutte say daan la nga koy waxaat loolu kay nit ñi ku ci nekk rek mën na def sa seede. man suma ma lekkee avance mbër dama ciy def ful la fayda jom ak fi hmm. defe naa mosuma bëree ñu pare naan acam damay def li ma war def lu ci des nag moom yàlla moo yor li ma wax laa lu ma waxoon démb laay waxaat du mu ñeex ñëpp kenn waaw léegi pay-per-view yaa ko yi nee nañu waa foo nga pay view bi nga fi dugal sax ku jóg dugal pay view kenn mënatul seetaan lam mel na ni sax moom commencé bi amoon ci est-ce que tey amuloo tuuti regret sax ci nga fi dugal pay-per-view. waaw Malick euh, moom am naa ko moom ci pay view honnêtement bu dee dëgg rek laay wax parce que ku ne sa àqulaayu taalaa wax. pay view li ma ci dugal dama xool ay xale sénégalais. muy euh, mon fils Ibrahima Faye Beuz ñëw jóge Canada yor projet bu baax dëgg yàlla bi mu ñëwee itam ma adopté projet boobu ànd ci ak moom ñu liggéey ko mu doon xale bu jàmbaare xale bu am jom am fulla am fit donc euh, ma jàppale ko ci Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux ñu ànd ci liggéey ci pay bi pay per view waxuma ne baaxul déedéet au contraire waxuma ne baaxul mais dama ne man damay regretter parce que lu rey làmb pay per view ci la bokk. parce que pay per view mun na jox peut-être promoteur xaalis mais problème bi mooy làmb engouement bi mu amoon pay per view da koy wàññi ndax je me souviens ñun bi ñu tëgg ay Tyson Mor Fadam ay Yékini Balla ay euh, Modou bal mi Balla boobu jamono engouement bi amoon. grand place yi nga gis euh, ay famille entière yoom dañuy joge dëkk dëkk jënd ay xar jënd togg ceebu jën Malick mi dëkk ngaay seen waa dëkk mu dem fa weekend bi ak yooyu yooyu ay mbir la woon yoo xam ne gisatuma ko man ci làmb donc loolu xëy na li doon xëcc nit ñi ci làmb sax xëy na mun na leen frustré dans leur subconscient xëy na du doon conscient sax mais subconscient lay doon ba tax ñoom ñu fustiger làmb donc man bu doon sama sago événement yu mag yu mel nii kenn mënu ko dëgg te amoo partenaire mënul nekk. donc état moo war a jël ay responsabilité responsabilité mooy lan mooy xam ne réew mi sama réew la man la ñu fal man lañ fi teg te réew mi li ma bëgg mooy ñu bég donc ñu xool ay euh, façon yi nga xamante ne mën nañ ko def ndax état quand bu bëggee jël événement yu mel nii may ko Sénégalais yi mun na am ay pexe yoo xam ne bu ko defee mën na may Sénégalais yi événement yu mel nii. bu leen ko mayee seen xo ñëpp seet ku ne Fongolemi ku ne Dindi Felo ku ne Fouta diaspora bi ñëpp seetaan combat bi bu ñu xëyee ñëpp di ci débat ñëpp di ci wax làmb dellu siwaat fi mu nekkoon. pay per view nag bañu ko am na yenn événement yoo xamante ne xëy na du am yenn envergure yi mun nañ ko def pay mais je pense que pay baax na trop torop torop torop ci làmb mais man de pour man sama aqulaayu taala rek laay wax euh, lu rëy làmb pay per view ci la bokk. da nga ciy wax moom laa gën a suivre que basket moom laa gën a suivre que football moom laa gën a suivre sax euh, musique mën naa la wax émission làmb yi doon ci tane yëpp chaque jour la. dafa am benn affaire boo xam ne bëgg naa ci mooy que ñun Sénégalais suñu jógee nii combat Malick Thiandoum ak Cheikh Sall combat. promoteur bi def képp talaay kàttanam boole ay njaayum gerteem njaayum daqaram njaayum solom ak di tax xëpp ci ko combat ba combat bi taxaw yow amateur bi yow supporter bi doon wax ko combat bi kat wax yàlla dafa war a taxaw ba bi taxaw yaa koy jàppale yow it yaay génne sa njaayum daqaram jënd ay bii ñëw toog seetaan loolu mooy tax au moins que ëllëg boo ne promoteur bi tëgg diggante Cheikh ak Moussa mu tëgg beneen bi ci tegee mooy question bi may laaj Modou Lo laa koy laaj soo yaakaaree ni combat bi dina yomb ci yow yaa ngi nax solo du koy supporter Eumeu Sène bi dugg na parcelle kenn rek lañu yaakaar mu jëli muy sa Lo waa Pikine yàpp ko préparé ko Ama Baldé boo déggee muy wax da gis ni kii am na lu ne ci biiram waaye am na lu ne ci ginnaaw nee na sax Modou Lo bu ko neexee signature contrat ba na indi njàmbam mu indi njàmbam ñu sëgg ba kon kooku ñeme na mbaa xam ne combat bi Modou bëgg ko waaye bi màgg na léegi yëkk na xeeb te du ma ko mus xeeb tey dama ne ci làmb di ci bay suma waar ba yàlla def ma jël couronne bi tey jël couronne bi sama premier combat war a nekk Ama Baldé kon combat bi xam naa fu ma yegg xam naa fu ma yegg bu baax a baax a baax xew ma ko du ma sa xew jamais lu yomb sax dafa baaxul lu yomb baaxul bu may combat bi yomb ay ñëw fet fat dóor mu daan wala yenn dóor si non bëgg naa mu saf balaa yooyu yëpp def allah jël lamb puisque bis bu mag la dañ koy xaar yàgg lu yàgg lu yàgg te bu ñu ñëwee bis bi war na war a mën incha allah bëgguma ku maa di ñëw rek day loolu sab sab wala xeex lu sab sab ci bëri di soog am allah loo ci wax sama bëgg bëgg loolu la dañoo nekk ci la CPP loolu da ngay siif ah. waaw maa ngi jégalu dama bindul te comprendre ma woon dañuy bind eh, am nga regret ci pay-per-view Sénégal ci li mu doxee léegi xam nga lan la ñuy xaar ci sa diggante ak moom ci combat Modou Lo ak Eumeu bu dee partenaire Modou Lo Ama Baldé bu dee partenaire dafa am bu fekkente ne partenaire dafa am sa collaboration moom da nga koy arrêté offrir Sénégalais yi combat bi wala lan la ñuy xaar ci loolu Modou dafa am expérience léegi moo tax di ko songee ci signature de contrat mu dellu ginnaaw voilà parce que bëri nga combat bu bëri coow bu nekk te combat bu nekk signature yi bari bari bari coow yaay jiitu li coow li bari sànni nañ la xeer fu ne yaay jiitu mais keroog dañ xeer nga dëpp lu ko a expérience la wala qu'est-ce qu'il y hmm. euh, question bi c'est très pertinent wax dëgg yàlla boo seetloo ci sama biir discours nee naa ne fustigé wu ma PPV waxuma baaxul lu baax ci làmb la mais man dama gëm ne lu rey làmb sénégalais yi nag ñoo fi tax a toog ak euh, amateurs yi ak askan bi lépp lu ma mën a def pour bégal leen incha allah dinaa ko def ndax nag Modou euh, bare na ñoo xamante ne ci population bi lañu bokk bugguma dugg ci détail duma ci dugg itam mais mënuñu accéder ci internet parce que fa ñu ne moo tax te ñooñu dañoo jar xalaat c'est la majorité. ndax ci askan bi lañu bokk man bu doon sama sago télé yëpp wane ko en direct ku ne woon la nga mëne nag waxuma jël signal di joxe de ku ne wane sa direct bopp woon li nga mëne waaw man bu doon sama sago noonu lay demee affaire bi xumb mel nu mu meloon bu njëkk ba am engouement te yow wóor na la wor yaa ngi may poser question mais xam nga ne loolu mooy dëgg te looloo war a am yow xam nga loolu ndax internet. am na ñu bari ñoo xam ne yoruñu télé nouvelle génération donc seen téléphone rek lañ ko mën a seetaan te téléphone tuuti na tuuti boo xamante ne di ko téye pendant quatre heures de temps di ko xool nii neexul te ñaata nit ñoo ci mun a xool donc man foofu laay waxee mais dama signé contrat parce que dama jël alal bu bare def ko ci làmb ji donc foog ma wut ay pexe yoo xamante ne ñoo ma ciy génne waaye ma gisee pexe bu gën a neex ma jaar ci boobu loolu rek la. jërëjëf ah Modou Boye c'est vrai. waaw. man bay sa question dégg naa ko. mais àdduna ku nekk ku nekk màgg ngay ñaan màgg ngay ñaan. ku nekk màgg ngay ñaan ci lépp nag ah. màgg du yéeli gudd rek wala boobu rek wala bu màgg. yàlla dogal na ci làmb comme ni nga wax. jafe-jafe yi bëri na dem nañ dem nañ dem nañ am nañ daal tax sax bu nekk signature bu nekk xam nga keroog comme ni nga wax. am na benn essence sax yi nga xam ne dënn yi tàngoor na naroon nañu affronté yi mais comme ni nga wax ku defarul rek yaa yàq te tey bu ñu defoon comme lu ñuy def kon li may wax heure bi leneen la ñuy wax dañu toll ci làmb si nga xam ni lu defar rek a def luy defar rek lañ ñu gisee lu yàq sax ñu dégg ko loolu moo tax keroog loolu amee xam nga dem nañ taxaw SDC mais après ñu ne dem ñun xam nga dañ fiy gaañ wala ñu gaañ amul benn loolu moo taxaw ñu dëpp keroog. Euh, euh, je vais perdre le coup. Euh, gërëm yëpp di leen sama papa Luc Nicolaï ak Modou Lo question bi nag bi ma am mooy su papa Luc Nicolaï laa koy laaj. di ko wax ne ko gis nañ presse en ligne bi ni muy liggéeyee ci làmb te keroog signature contrat bi ci signature contrat bi diggante Modou Lo ak Baye Mandione dañ ne cinq heures la ñuy dugal ñu gis ne da nga signé ak benn partenaire te presse en ligne bi bokk na ci li muy jaay combat Modou Lo. ak Ama Baldé question beneen bi tamit bi may amaat Sénégalais yi ñoom ñooy ak Modou Lo ñoo bokk dëgg combat Ama Baldé ak Modou Lo jërëjëf gis. Hmm. yéen ñaar ay partenaires ngeen. Euh, Malick dafa wax waxu presse en ligne presse en ligne bi tey ku nekk xam na sama diggante ak ñoom. yaakaar naa ne amul benn événement boo xamante ne mus naa leen ko tere mais nag dafa am loo xamante ne dañ ko war a réguler aussi loo xamante ne dañ ciy toog waxtaan ci parce que ñoom ni ñuy defee promotion événement bi ñoom noonu la ñuy amee ay seen liggéey ñuy soxla événement bi donc loolu dinañu xool ki nga xamante ne mooy seen responsable moral ñu toog ñu waxtaan ci wala ñoom ñëpp su leen neexee parce que loolu sax décidé woon naa ko benn moment woo leen ñoom ñëpp ñu toog waxtaan xool na lañuy ñuy ci combat bi maxu mu ngi nii xam na ne waxtaanoon nañ ci maxu moon na mi bi nga xam ne moo ne ci Ligue Nicolayenko donc am na luñ ci waxtaanoon parce que moom mooy gérer lépp luy digital donc biñ ci waxtaanee aussi am na luñ ci tëraloon mais loolu yëpp dina ñëw incha allah dalal leen seen xel lépp lu ñu mën pour ngeen mën ci liggéey ba gis ci seen bopp dinañ ko def parce que ñoo bokk réew te ñu waruñu te dara ne lépp dans la mesure du possible ak li nga xamante ne ken du gaañ moromam loolu dinañ ko def incha allah beneen question bi Malick. mu ndax yaag Modou loo mii da ngeen a teg dil. Hmm. ah mu ngi nii. waaw mu ngi nii. yéen a yéen di tëgg làmb ji. dama ne am na ñuy wax ni sar yow mu lig dana joxu dara. da ngeen a kii collaborer. ba leer. non mais xam nga yi moom bu amee ku ne di nga wax sa xalaat rek man mi bëri nekk acteur moom. defe naa tal naa leen dul di di di di tëgg ay làmp ak nekk ay production si ma li ma nekk laa nekk muy sama entraînement moom promoteur la comme ni ma yàgg na tëgg bis bu nekk bis jaaxlu ko. daf ñu fay ma nag Ama Baldé ñu war a sañu bëri incha allah di ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci ak jàmm soobee yàlla. pourtant nag Malick yàlla rek moo tax may wax. Mhm. Maodo mu ngi nii toog. laaj ko ndax avance am un franc manqué na ci laaj ko ko mu ngi nii. amul benn bu bu coo xamante ne manqué na ci. te reliquat bi CNG laa ko yóbbu ñu jox ko ko mu ngi nii yore lu ma leen dara. am na loo xamante ne nag. ah non kay jaru sax wax. parce saa lu ñu waxante bu amul lu ci manqué kon. Mm-hmm. kon ñu nit lu ñu lu ñu war ak moom duñ ko def. waaye mm-hmm. tey <laughs> moo ngi nii woote ñëw leneen ak leneen bu woote bu parce que contrat moo ñu tënk. Mm-hmm. lu ñu signé lu leer nañ ko. ku ne jam sa waaw. loolu la di ñaan Sénégalais yi rek aussi ñu gën a ñu gën a tàppe xol xam ne aussi xam nga nit aussi toujours delloo ko rek la mu moom bul ko jéem a toujours fustiger di jaar ci yenn affaires yi réew mi fii laa dëkk lu ne def naa ko fi waaw nañ ñaan yàlla rek eh, mu ñuy kàttanal ndax yàlla rek moo yor kàttan ñun yoruñu kàttan waaw bu ko neexoon tey lii sax du am bu ko neexoon kenn xamul tey ndax di nga ñibbi sa kër ci normal kon nañu sant yàlla di ko gërëm boole xol yi boole xel yi lu am solo gi noonu maa loolu leer na. Mm-hmm. yaakaar naa ne Mourou ak. maa ngi nuyu ah Sénégal 7. ok ñu nuyu Pape Nicolas Luc Nicolaï tey moom question bi ma am mooy souvent dañu lay bëgg interviewé mais xam naa tu communiques pas beaucoup li ma lay laaj mooy sa biir wax wax nga ni que Ama Baldé peut-être dafa jël loo xam ne daf doo ko doon parce que gis nañ ko ci diggante moom Tapha Tine donc face à face boobu warul am fàtte aan mujjewul am parce que Tapha Tine moo ko jiitu otoom bi ñu toj ko sotti ko ay gàllaaj loolu moo waral ne diggante Tapha Tine ak Boy Niang ba tey face à face ba ni bi di amee parce que Tafatin da doon bañ loolu ko daloon dëgg mu dalaat ko diggante moom boo ne woon na ko maa la mën su ma la nee puusal di nga puus yow nga wax ni ñoom dañoo jëlu leen ëpp doole loolu noonu yow lan nga koy expliquer yéen ñaar sa sa adversaire boobu aussi ñu gis ni Covid 19 bi tout le ñu gis sa combat bi ñu reporté ko à cause de ça yan yan dédommage ngeen si am ak euh, beneen question promoteur bi la eh, ci Covid 19. waaw beneen question bi ci Covid 19 bi la promoteur bi li mu ko lay. ñu gis ni amoon nañ ay promoteurs yu ñu woo dédommage am est-ce que moom ci la bokkoon mais aussi lan moo tax Covid bi boobu ba tey dégguñu ko ñu xam ne metti na ngay reporter sa combat ci ay millions yu bëree bëri loolu lañ koy masaw di ko di ko laaj moom Covid bi lan la def ci moom. waaw sa question bu njëkk mooy li ma wax moom loolu laa jàpp. parce que loolu laa jàpp moo tax man i xanaa li ñu jël dafa nëpp doole ba tax boobu léegi xam nga saa yu dara taxawee rek ñii dafay affaire man loolu laa jàpp dañu teel lu leen nëpp doole. mais man téléphone si mais man loolu jaaxaluma comme li nga wax taxu sant bu nekk bëri naa ko bis munu des si man ñoom kay xam naa moom ñoo jël lu doole moo tax boobu ba léegi ay jénke-jénke jàpp am quoi mais nañ ko koy offert rek di suur ko. ndax dédommagement am na ci report yi. waaye xam nga affaire de Covid 19 la wax dëgg yàlla xam nga loolu ñëpp la touché parce que promoteur bi tëgg combat am moom bu ko neexoon bu bu sañoon combat bi am am lim ci am dem avancé xam nga ñun tamit noonu mais tax na li nga xam ni yàlla daal balaa bi yàlla wàcc la kenn mënu ci dara état nag am na yu mu doon def mais ñun nag mbëri moom ñun deful wax dëgg yàlla am na yu mu def ay dédommagement ci fond Covid bi. mais ñun mbëri moom gisuñu ko vraiment mais sant yàlla nag alhamdulilah. li ndax jot nga ci dédommagement Covid 19 bi report yi yan conséquences la am. waaw Malick euh, wax dëgg yàlla report yi metti na trop ndax ku jël sa xaalis immobiliser ko pendant ay at yaakaar naa benn investisseur homme d'affaires yi may dégg xam nañu ne amul intérêt. boo ko dugaloon banque sax ci un an. au moins minimum li ma fay mbëri di nga ci am bénéfice boo xamante ne di nga ci mën a régler ci benn année sa famille donc loolu amul solo par contre nag ci dédommagement yi euh, li ma dégg man parce que man kenn woowuma pour dédommagement mais man li ma dégg ne moom la ñu dédommagé mbër yi euh, promoteurs yi muy deux millions yaakaar naa loolu laa dégg ne moom la ñu jox mbër euh, promoteur bu ne man deux millions yi moom laay fay frais d'organisation pour organiser làmb donc question bu pertinente nga wax je pense que dédommagement <coughs> pardon ah dédommagement buñ koy wax euh, deux millions nga koy jox koo xamante ne peut-être fay na ay centaines de millions ay mbër bon xëy na aussi loo xamante ne war nañ ko seetaat mais man je pense que ku ma woowoon sax di ma jox deux millions pour dédommagement wu làmb ah wax dëgg yàlla yaakaar naa ne dinaa ko jël def ko feneen waaye lu ma ko def ci sama bopp man parce que yaakaar naa ne yenn wul maanaa ci man promoteur yi ñoo tere parce que yow da ngay joxe sa avance ci Covid. exemple ah Covid bi jeex yow da ngay continuer li ngay am da ngay am yow amul perte quoi. mais mais laajal Modou mii. laaj ko moom kañ laa régulariser combat laaj ko ko. waaw comme yow la est mois avant Covid laa régulariser man. au mu ngi nii toog kenn man du lu may wax man. promoteur moom mu ngi nii toog. xam nga loolu tey bëri moo ci gën a perte bëri mi ah. jël avance. Covid ñëw. Mhm. kenn dédommage wu kenn defu ko dara léegi xam nga ni day dund loolu lekk na ko bu yàgg léegi combat boo war a ñëw sax wax ñu jàppaat ko loolu moo ciy gën a dem. maa ngi mais est-ce que lamb ji kon est-ce que lamb ji amul buy daw bu ñu ñu am mu am ci xeej ak seen est-ce que. waaw ah problème bi amee ñun bëri génn nañ wax nañ ci yow yo yow problème mu Covid bi woon wax tamit ci ci affaire de fond Covid bi woon. parce que ñun ñëpp ay acteurs lañu affaire bi ñëpp la impacté woon. boobu jël nañu ay avance to Covid ñëw ñun ñëpp a ci am balaa bu yàlla wàcce rek mais tamit affaire yi moom amoon na ku mën day am amoon am amoon na ko. gis nga wax bu jotee dañ koy wax. moo ma fi indi man. Mm. sinon du ma ñëw fii di fi toog. gëj nañ ma gis ma jàkkaarloog presse bi. li Cheikh wax dafa am solo est-ce que loo bi amul ci làmb ji. làmb ji nañ delloo siwaat xel yi. ña ko war a yor yor ko ñi ko war a yor xam nañu seen bopp. la ca biir nag sëpp la la ko bënn nga ca biir kenn xamu ko waaye nag la ca ne man dinaa ko wax mais wax dafa jotagul ndax wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne danga ma waxte wax jotagul mu jooyaat ñu ne ko looy jooy mu ne ko danga ma wax foo ma war waxee moo tax duma ci waxagum mais am na lobi mais mais lan moo ñu mën a jaaxal fii ci làmb ji Malick yow malik Thiandoum mi toog je te prends à témoin fu ne nañ ko ci Sénégal Tamba Saint-Louis fu ne def nañ fa làmb événement bu dul événement jinne def nañ ko donc tey li ci làmb ji xam naa mais affaire lobby yi ay détails li moo dox sax dafa am solo ay ñëw yor sa ay barigo di suul ci la affaire bi du foofu si suñu borom dong fi ne wa inna lil muttaqiina mafaasan moo fi ne suñu borom kase moo fi ne leneen new waaw. tey sëñ moom laay jox. toujours boo amuloon maturité dina gën a ñaaw. Mm-hmm. ndax dina gisee sa kanam loo xam ne lii jàll da nga jël say responsabilités dellu. macha allah loolu ci félicité euh, yaa ngi wane exemple bu bari ci làmb ji ci. di joxaay ay message message bi nga wax sax dañ ko war a lancer ñëpp dégg mooy jeunesse su Sénégal te yow ci jeunesse su Sénégal bu bopp euh, modèle de réussite la xale yi war nañ xool ci yow xale yi war nañ xam ne loo gëm mën na te loolu la def maa ngi lay félicité bu baax. Euh, deuxièmement bi aussi di masu wu ñu ji xaalis mënu koo téye dégg naa maama ji léegi loolu fu làmb xaalis déedéet su fekkee ne. Luc Nicolaï El Kour fu bëgg ñu délocaliser làmb ci nga ko wax mu leer ñun ñu dugg ci wax ci def ci ay débat dafa fi république ba léegi ko lu mu laaj bi lu laaj defal loolu ku ko mënul seet ak nga toog man je pense loolu mais bu fekkee ne dafa jaarul ñoo ko fële clairement ñun ñu jàpp ci aussi wax ci def cay débat république bi tranché je pense que man contribution boobu laa ciy làmb ji dañ ci am rôle bu ñu joué mm-hmm. ci suñu télévision yi dañu am ay engagement yu ci war a def kon làmb la ñoo xam ne ñun dañ ci war a jàpp ba mu réussir làmb ju ñëpp di xaar la su ñëpp di xaar parcours ga oo ga ñaaw ji sax làmb jeex oto taxaw ci buntu bi naan gàmbi oto taxaw ci buntu bi naan dara li mu doon wax sànq laa koy leeral làmb yàqul de la ko valorisé na làmb bi moo sax tas boo génnee ci buntu bi da ngay gis dara Kaolack gàmbi oto yaa ngi taxaw pompier day déplacé wu. loolu moo doon. Mm-hmm. amatul laal na ñooñu bu ñu déggee ne fii bi daf fi am mais jarul leen jël oto luy ko nar ñëw fii mais attention xale yi dañu xool li ñuy def sa message bi am na solo te je pense que. muy yow muy Balla Gaye muy Bombardier war ngeen toog nag benn mhm. parce que làmb ji Malick. Mhm. ni am na ñaan yu nekk ci ginnaaw. di mobiliser xale yi. di saboter làmb ji. Mhm. man léeg-léeg du force je pense que force. du force rek am na ñu jël ay lobby pour saboter ji. ñooñu la ñu war a identifier xool ñaan xale yii ma gis du déedéet boo daanee sànni gañe ku gañe lu mu daan gañe euh, foqatee yow loolu animé loolu lañu ne dañ ko jàng làmb ji daal ñun dañ ko bëgg a seetaan muy làmb ju ñëpp bëgg kon ñu ngi ñaan yàlla moom may ko kattan ba ñu yegg ci làmb ji am làmb ji xaalis téyewu ko non déedéet xaalis mënu koo téye sax li toog di kay mooy li ñu njëkk a ci ñaari mbër ku ne toog nii kii toog nii. waaw fan la problème bi ne ñan ñoo bëggul jàkkaarloo bi loolu la ngeen war a gëstu ñan la ci côté Modou Lo la côté Ama Baldé ñan la. et puis maa ngi def appel ci entourage yu ñaari mbër yi ñu am maturité ay mag a fa nekk duñu ay xale. a fa nekk nañu wax waxi mag def yëfu mag. jëf-jëf yu mag indi ñaari xale yu ñu toog ñu déglu leen c'est pour une première sax xam nga seen demi loolu daal la doon contribuer di ñaan yàlla yàlla loolu suñu njëriñ. très belle contribution El Hadj Mbaye. non non maa ngi maa ngi ci liggéey bi daal. xam da jeex est-ce nekk di xalaat combat bi ba jeex wala <laughs> da ngaa da ah, maa ngi ci liggéey bi ma war a nekk daal di liggéey vraiment yokkuma wàññiwuma maa ngi ci diggante bi ma nekkoon rek waaw loolu amaat ci rek incha allah. <coughs> waaw waaw mais xool nag. Luc Nicolaï en ko moom baaxoowul. képp ku ma tuddee rek comme tu di ay Abbé Diamakhoune ay Kumba euh, Gawlo suma xarit ñooñu laay tuddee exclure ñu aussi làmb ji ñu jox ko nit koo xamante ne mérité na ko ndax liggéeyam bi mu liggéey ci biir réew mi mais wax dëgg yàlla fii ñuy wax ak yow moom amul kenn koo xam ne tànnagum nañ ko pour bés boobu. amagul pare amagul pare merci beaucoup. Mm. Aïcha. violence bi nga xamante ne moom la am ci làmb ji ko laajee woon ci jëral noonu a yi souvent da ngeen di wax rendez-vous open presse le 16 la combat le 28 la nga xamante ne moom moo xew temps yi ñu gis ngeen koy ngeen koy def yéen mbir est-ce que mën nañu xaar Modou Lô ci combat bi nii mu def caravane. wala mu def ay jours yoo xamante ne day dajale ay ay président parce que la bon ñu wax ay ay supporter am beneen bi pour li ñu ko parce que dégg naa sànq bi bokk bu ñu xoolee vidéo yi nga xamante ne mujj nañ ko dugal def na 4 mois yaakaar naa ci Lutte TV moom benn visite bu mu ñëwoon defi ko Lutte TV yaakaar naa tey ku xool Lutte TV di nga gis vidéo mu jeex na. lamb tee la mu ci loolu noonu parce que benn visite la def si loolu. ban moment la sentir ni day yàq lamb ci ñàkk déggoo ak bës moo tax mu jàppoon tey béykat bi day yàq lamb wala parce que yaakaar naa ne loolu boo bëggee 4 mois la fàtte xaju fa. waaw sa question d'abord communication mu ngi am suñu diggante ak ak ak ak suñu parce que ñu ngi def ay réunion ñu ngi am ay groupe ci ci ci WhatsApp yi moo tax ñu ngi waxtaan bu baax a baax te yii nii ñuy wax toog nañ fu nekk fu nekk di ko wax mais day des rek làbbali fas moom taxul taxul taxul loo la làbbalee doyul quoi di wax ñun mbër yi dañ ci am responsabilité yu mag mag muy di gën a wax ak supporters yi di ñaax rek quoi mais ñoo ngi ci ñoo ngi ci ñoo ngi ci am tout le temps. waaw pourquoi pas. sensibilisation pourquoi pas pourquoi ayca ci bu la waaw euh, Lamine question bi dafa mel ni sànq sax tontu naa ko. <coughs> waxuma ne ba léegi pay per view baaxul ci làmb déedéet waxuma loolu de dafa mel ni dégguloo li ma wax boo dégluwaatee peut-être li ma wax sànq dinga nga comprendre dama ne pay per view li yàq làmb ci la bokk engouement bi làmb amoon. pay per view baax na ci làmb parce que nit ñaa ngi ciy gis seen bopp mais baaxul ci benn côté lu la wax dafa laaj dégg-dégg baaxul ci benn côté mooy am na ñoo xamante ne ñu bare mënuñu accéder ci pay per view donc engouement bi làmb amoon bu njëkk ba xëy na tey booy xool moo tax tey euh, am na mag yu bare ay classe Malick Thiandoum yi xëy na léeg sax nit wax la na la Malick Thiandoum làmb da koo dépassé da nga koy dégg léeg-léeg Malick Thiandoum lamb dépassé na ko Bekay Mbaye lamb dépassé na ko parce que xale yi ci réseaux sociaux yi la ñuy ne réseaux sociaux yi la ñuy ne man côté boobu lay waxee waxuma ne baaxul parce que fii may wax ak yow yaa ngi wax xëy na juumoo yow yaa ngi juum lamit man Ibrahima sama doom la ban juumoo moo am sama diggante ak Beuz Pro de ñàkk déggoo ban ñàkk déggoo moo ci am amul ben ñàkk déggoo question réponse waaw loolu rek la euh, yéen xam nga ne yéen ñëpp wax dëgg yàlla samay loxo ngeen jaar bu dee yàlla dëgg rek la bëgg samay loxo ngeen jaar Lutte TV ba egsi tey fi ngeen egsi bu dee yàlla dëgg rek la bëgg donc Ibrahima tey li ma koy ñaanal yàlla man naa ci jiitu lépp lu ma ko ñaanal rek yàlla naa ci jiitu man waxeewuma fi ngeen di waxee man waxuma côté boobu dama bëgg wax ne làmb pour mu dellu waat mun nañ def pay per view def ko diaspora payer Sénégal brouillé diaspora ba nga xamante ne ñoom dañuy fay mais Sénégal ñu may leen ko parce que ñi ginnaaw loolu mooy dooleelaat làmb ba mu eggaat fi mu eggoon mais waxuma ne damay bàyyi pay per view de déedéet làmb bii di ñëw sax xanaa moo bës mën na ko def làmb bii di ñëw nii nii nii waxuma ne baaxul mais fi may wax mooy day wàññi doole làmb foofu rek laay waxee. Hmm? si vous avez de grands sponsors. état dugal ci dootu ko jar. ah déedéet dootu ko jar bu boobaa nag diaspora bi nga xamante ne ñoom am nañu yaakaar ne xëy na tey ñoom euh, am nañu moyen bu ñu jëndee làmb ñoom ñu jënd ko. mais biir Sénégal parce que foofu connexion xam nga ne ku ne bitim réew connexion jaaxalu la muy France di feneen di feneen ak feneen. mais tey fi nga xamante ne tey boo demee yenn coin reculé yi même bu fa connexion amee xëy na amuñu moyen tey jënd paas cinq mille francs pour seetaan cinq mille francs nañu waxante dëgg ah am na ñoo xamante ne duñ ko yor di ko jël waxuma ne ñu ko mais duñ ko jël di ko def ci paas donc ñooñu tey nañ leen xalaat am na ñoo xamante ne tey fa ñu ne internet accédé wu fa loolu foofu laay waxee Lamine c'est la majorité foofu rek laay waxee waxeewu ma feneen mais làmb ji exclure ma ci pay per view de liggéey ak bër sax exclure ma ko déedéet mais problème bi mooy fi may waxee mooy engouement làmb bi ñu soxla woon am na loo xamante ne pay per view téye na ko ci. wàññi na ko bu baax te dama koy dégg ah, ci journal yu bare ba ci jamaïcain ba ne taxaw keroog moom ma koy wax. ne ma yéen mag yi làmb da leen a weesu. bokkatuñu voilà mu ngi noonu bare na dëkk yu wax ne bokkatuñu ci làmb. yow fa nga jóge Lamine fa nga cosaanoo tey tey tey ah looro yow xam nga ne tey boo xoolee sur dix personnes benn mooy jënd connexion ah foofu rek laay waxee. <coughs> bon dama amoon ñaari question rek bu concerné Luc ko ak Modou Lo première question bi Luc laa koy posé parce que bu ñu euh, waxee ci lu jëm ci li doxal làmb ak euh, euh, bësu làmb tey moom lañ ciy njëkk a muy euh, présence su pourquoi présence seulement Modou Lo pourquoi pas les deux comme ça ñu xool nu ñu waxtaanee nu ñu mën a demee ci bés boobu noonu. deuxième question bi ma ñëw ci Modou Lo euh, sa communication bu mujj sa sortie bu mujj da wax ci staffu Ama Baldé wax que ni ay dof ñoom ñoo ko nekk est-ce que jàppoon ni yooyu aussi bokk na ci yëkkati fitna ci diggante lamb yooyu. ak d'autant plus que yow yaa jàkkaarloo ak Modou Lo est-ce que li ngay wax doo wax ak euh, Ama Baldé directement au lieu de parler de son staff parce que yow tamit am na staff merci beaucoup. Ah, ci lu yëkkati waat fitna <laughs> ci boobu ko ñoom ci leneen quoi loolu damay euh, prolonger laaj bi tuuti rek complété ko ñaari sortie médiatique yi am yëpp Modou Lo la ak quand la sortie médiatique de Ama Baldé. Ama Baldé mardi incha allah moom mooy ñëw ak man fii Modou Lo toog moo fi toog incha allah man ma toogaat fii ma toog ñu annoncé nag. face à face bi nga xamante ne ñoom ñaar ci la ñu war a jàkkaarloo jour boobu lañ leen koy annoncé incha allah. Boubacar Penda Yeri IGFM. voilà on a de très bonnes relations fu ñu gisante wax dëgg yàlla dinañ joxante loxo mais nag bu dëgg jotee itam dañ koy wax lool loolu rek moo ñu boole incha allah. loolu de la fin Modou lan ngay tàggoo askan bi. di nuyu waat encore waa Sénégal yëpp remercier parcelle bi ma jógee xam nga waaru énergie di ñaanal mbaru parcelle yi am combat yëpp incha allah yal a leen yàlla may ndam di kontaan ci assistance bi vraiment yal na yàlla def jàmm ci Sénégal incha allah yàlla ah, sans frontière xarañ famille xam nga waa waa MKB